di leen tàggat ñenn ñi nga leen di tuubal di leen indi guy mind moo tax sëñ Bas nee na nag mbaal mi daal yow jëlal rek di sànni ci géej gi loo napp indi la euh, indi ko guy mind ndax Cheikh Modou Lamine attan na lépp kon ñu jëbal kàddu gi waa kër sëñ Balla Coro Cheikh Coro Balla Coro ni xari Mbàkke Kumba Tayba ñeent ñii nag bu yoonu murit bu doon nag la buñ ko bu buñ ko rayee noom dañuy seddu ba doyal ne seex seex eh, xari mbàkke sëñ mbàkke bu so lañ ko jox mu am ci soxna faat buso ak sëñ moodu buso ni ah, ak sëñ mu lay buso ni sëñ moodu buso mooy bàyyi sëñ maamun buso ni soxna faat buso jur soxna mbenn galas nee naa la sànq eh, soxna kumba tayba nag mooy maami sëñ seex baara karim mais mi ilimaanu guy min léegi nag Serigne Bassirou nee na nañ arrêté ndax kii dugg si mooy soxna Khadijatu moom Serigne Ahmadul Mukhtar moom Cheikh Moustapha Aminata Lo Baara Aminata loolu nag xam naa ni moom après faw ñu commentaire ci maak Abdoulaye ak Moustapha nee na daal nañ arrêté léegi looloy ndigal li li sëñ bi wax nag man du ma ko yokk du ma ko wàññi soxna Astu sëñ Bass nee na ñu arrêté ci Sarak Baara Aminata Lo Moustapha Aminata Lo soxna Khadijatu sëtub Cheikh Moustapha bi ki baayam doon nu Serigne Modou Moustapha doon nu Serigne Baara soxna Khady soxna Serigne Bas xaritam rakkam léppam seriñ bi nee na ñu dugal Serigne Bas Serigne Modou Mamoulou nee na ñu dugal euh, soxnaas. waaw xam nga dama ni Touba bii nu noppee gis Serigne bi njaareem làkku ngeer fa amoon waaye buñ ne Xaadim borom jumaa ji nag doom ju am a tax moo indi bi. moo fi def jumaa ji moo indi Cheikh Bamba ci biir moo tax nga dégg mu ne njëkkeel Ahmaduna Moustapha ka dib taaw ba ngeen xam ne jiw ren wii ngeen bayoon daaw ne ca tànnoom nga la def Moustapha mu dib taaw mu tànnal ko la buur tànn weesu naa ñaaw ni sëriñ bee ñu ko tànnal ci biir tànnit te aw tànn du jar poose mbaa timbaliit ni turam waa nga dëppoog taar ba ay nee leen kaar nañ wal Aminata gën ku dee fi yaakaar ne xalifatom ya mu noon ci yow mën na ku leen peese ba nen ci xeeti xeeti taxawaa yëkkati lay biitu xasaayit Serigne Modou Mamoun kii dugg si nag day rakki Serigne Bass di soxnaam di xaritam waaye fekk na fi njëkkee moo ko accueillir ajaratu maam Anta Dia mum soxna Aysatu Mbàkke mum soxna Assu Dia mum Ibrahima Dia mum Serigne Omar Dia Serigne Bass nee na ko maam Anta moo lay accueillir ah ko sama jigéen bi moo lay soxna maam Anta moo ko accueillir ki nga xam ni mooy soxna Assu Serigne bi nag moo ñu jox arrêt bii xam naa ni après. sëriñ si Abdou Lahad Gaynde Fatma ñu wax teewaayu délégation mu xadimatul xidma mu xadimatul xidma sëriñ Bass dafa bokk ci daayira jumaa ji di leen jàppale di fa indi teraangaam kum xam ni bëgg ngaa liggéeyal sëñ Tuubaa mu ne la nañ dem ñu at bu sa moo ko jiite sëriñ Fallou Mbacké ak sëriñ Jili Ñang délégation bi nga xam ne mooy journal verdict nuis alaaji Cheikh mbake Gadiaga moom sëriñ Cheikh Bombali gis naa yaayam léegi soxna Saw moom itam teew na verdict nuis def na lu mat junni exemplaire wala ñett junni exemplaire di ko def ci dëkk bi mu mel ni mu Moustapha Diaw Imo waaye woo juróom dafa teew ñu ngi dalal bu baax soxna Nday Mbàkke moom Serigne Modou Hafiz moom Serigne Baara ñu gën koo xam ci Serigne Modou Baara taawub Serigne Baara soxna Nday teel ngaa ñëw lool cofoo bis bi moom Serigne Ahmad bi ah, ah, Ahmed Baran Thiam ànd ak rakkam soxna muslim Mbàkke moom soñ Modou Baara sëriñ Bassirou neena na seen teewaay bii rëy na ci moom lool yaay Moustapha Jaw Jaw Imo kii dugg si nag mooy borom guy mbind borom Mbàkke Kajoor Serigne Axma borom Louga borom keneen seexub sëriñ Bas ka nekk ca tool ya di liggéeyal baamam sëriñ Baara di sëriñ Ahmadou Mbakke moom sëriñ mu Abdou Aziz sëriñ Ahma mooy duggu si noonu. ñu ngi koy dalal bu baax. bi bi soxna sa coordonnateur bi ñëwee. muy mais bi soxna sa coordonnateur bi ñëwee. soxna sa président ni journée culturelle bi te dafa ñëw. dama ne soxna Khady mu sëriñ Bassirou Mbakke mu sëriñ Xaadim Awa Ba daa ànd ak soxna Aminata Lo. di di di kilifa ci microfinance. Uh-huh. waaye nag mooy madame Serigne Djili Mbacke monsieur Abdou Aziz Baara mi président communauté journée la Serigne Baara. kon suñu soxna président ñëw na. ñëw na waaw. léegi. Abdou Aziz Alé Ndiaye. léegi nag Serigne Bassirou nee na Matar Boub Abdou Aziz Alé Ndiaye agsi na soxna Salimatu jërëjëf soxna Mame Fati Kebe moom soxna Waalom Serigne Saliou agsi na ànd ak soxna moom it Moustinatu Mbacke moom Serigne Sidim Serigne Abdoulaat ak. soxna bàjjan moomi moom sëriñ Dame Atta ajaratu soxna Diop moom soxna maam Ami Lay madame Mbacke moom sëriñ Ismaïla agsi na mu mel ni kii day sëriñ Matar xasida yi mooy mujj sëriñ Matar Mbuub mii moo ànd ak waa sëñ Balla Coro mooy tijji mooy tijjil sëriñ Gaawaan ak sëriñ Xaadim ñu ñu mën a dugg nag ci kàddu parrain bi soxna maam Anta Dia moo teeru soxnaam na leer muy soxna as muy soxna astu muy soxna xadijatu moom sëriñ Ahmadou Mokhtar bisimilah. jërëjëf Serigne Cheikh Anta Samb mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Serigne Basiiru Mbàkke moom Serigne Xaadim Awa Ba njabootuk Serigne Cheikh Thioro ci kilifteefu Serigne Xaadim mi di xalifaam ak njabootuk Serigne Balla Thioro ci kilifteefu Serigne Moulay mi xalifaam njabootuk Soxna Xëri Mbàkke ci kilifteefu Serigne Modou Maan njabootu soxna Kumba Tayba ci kilifteefu sa mbokk Serigne Cheikh Bara Karim imam guy minu bee toog ak njabootu la seen ak debbo ñoo lay nuyu kon ci gàttal Serigne Basiiru njabootu coromaaroo sa yaana waagaan ñoo lay nuyu di wax ni suñu xol sedd na suñu xel dal na ca suñu asakay yéene jiñ la jox muy addiya dañoo jub ay bis ndax ku ne xam na ni mar janvier lay doon jaaxal janvier lay doon ca waa kër Serigne Cheikh Thioro ñi ngi waajal centenaire u Serigne Cheikh coro ca incha allahu rabbi moom it ci janvier bi lay doon ndax Serigne Cheikh Thioro 1924 la fi jóge woon 2024 bi mooy cent mooy mooy mooy sant cent euh, centenaire bi Cheikh Anta danga wax lu am solo nee nga Thioro maa roosa yaana waagaan daa bàyyi alal bàyyi ay jur bàyyi poire dem ci li nga xamante ni mooy sëñ Mbacke Mor seli ba mu koy def nag nekkul n'importe qui ndax booba barak la ca waalo di buur ca siin di mel ca teeñ di li nga xamante ni moom moo di ca jolof barak la ca waalo di buur ca siin di mel ca teeñ di mbokkum réew mi yëpp soxna Cooro Jóob ngoone kumba jéng ko jur mu mbir ma Fatma Thioub Fatma ak Aysata ak Codé Samba ak Makhourédia ak Dior juróomi lingeer yooyu benn càmmeñ lañ am mu monsieur Issa Dieye Fatim benn mi leen jur ak Yacine Issa ak Ngone Latir la sukaabe Ngone Dieye la seen bàyyi tudd ñu ñëkk koo jox nag ca Yacine mu am ci la seen ak debbo seenu njaboot ñëw na mu ñëw ko sëñ Mbàkke Moron Sëli taawloo fa ñaari góor muy Seex Coro ak Balla Coro ak Xari Mbàkke ak Kumba Tayba soxna Coro Jóob ngoone Kumba Jeng ndeyam birima ko jur maa ngoone baayam su ma saana wax ren balaa wax déwén ma kondu Kumba jaariñ la ma saan ma Coro fay saas ba wax nga ko léegi sëñ Basiru suñu xol sedd na yaa ni léegi soxna Thioro Diop yàlla fay na ko soo demee Touba sëriñ soxna Thioro Diop lay jiite muy Serigne Modou Maane Boussa Serigne Modou Boussa baayam soxna Xari Mbacke soxna soxna Thioro Diop soo demee Guédé Serigne Cheikh Boussa Serigne Assane baayam soxna Xari Mbacke soxna Thioro Diop soo demee Italie wala Amérique Serigne Khadim Boussa soxna Maam Awa Serigne Assane soxna Xari Mbacke soxna Thioro Diop boo demee Italie bu la neexee Serigne Mbacke Mbacke mooy caatum Serigne Balla Thioro moo lay jiite ngoone kuma jéng bir mi ci benn baat bi ñëw nañ ak seen asaka yéene Serigne Bassirou suñu sedd na ñu xel dal na nañ bu baax a baax ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp Cheikh Anta jërë ngeen jëf bilaay waxtu wi daa xat sëñ Cheikh Gaawaan jërëjëf waxtu wi moo xat ñu déglu sëriñ Cheikh Gaawaan mooy wax ci turu bi Serigne Balla Coro ak Serigne Cheikh Coro genn kàddu la soxna sëñ Moustapha moom sëñ Abdoul Karam mooy dugg si borom aafe bàyyi seriñ Bas seriñ Serigne Dame Atta yabal nab taawam Serigne Cheikh Wilaya moo ànd ak Serigne Saliou mu mel ni monsieur le maire Abdoulaat Ka bàyyi na fi sëñ Mourtala Lo dafa am réunion moom Serigne Loom soxna Muslim sëñ Touba ak Nayler bisimilah Serigne Cheikh Gaawaan. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi alladi bi dikrihi tatmainu alqulub wa bi shukrihi tazdaadu niam wa bi nicmatihi tatimu salihat wasalaatu wasalaamu ala man buisa li yutammima makaarima al axlaaq muhammadin ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim rabbi israh sadri wa yassir li amri waxlul xuqudatan min lisaani yafqahu qawli mbokki gannaaw sant suñu borom subhanahu wa taala ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ngi nuyu ñi fi teew ñépp di jiital ci suñuy kàddu ñaanal seex muhammadinil muntaqa suñ boroom defal ko fan gudd ak wér ba naan yi mu naalal seexul xadim yépp mu mottali ko ñu nuyu ki ko fi teewal di nuyu mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi fi teew yépp di nuyu mbooleem njabootu seex muhammadul lamin baara mbàkke di nuyu sëriñ Cheikh Assis di nuyu Serigne Cheikh Baara Abdou Karim di nuyu mbooleem taalibe yi ak mbokk yi fi teew yépp gannaaw loolu Serigne Basir Serigne Moulay Mbakke xalifa Serigne Balla Coro moo ñu fi yabal boole ñu ak sëriñ Abdourahman Mbacke xalifa sëriñ Mbay Mbacke jaaxal mu jiite délégation bi ñu ànd ko ak mbooleem njabootuk sëñ Balla Coro gépp teewal fi sëriñ Mulaay moomu mu yónnu ñi fi nañu bu ngeen demee na ngeen ma santal sëriñ Basiir Xaadim Awa gërëmal ma ko bu baax a baax ne leen ko ñi ngi koy bëggee te ñi ngi koy ndamoo ndax sëd bu baax la noonu la ma ko waxe bu ko defee li may wax yépp nag mooy saraa kàddu yooyu kàddu yooyu nga xam ne moom la ma sëriñ bi dénk ne naa ko ko jottalil sëriñ Bas muy kàddu yu fasu te tënku loolu laa fas yéene saraa ci gàttal kon sëriñ Basiiru ñi ngi lay sant ci turu sëñ Moulay cant goo xam ne am na tàmbali waay waaye amul yamukaay ñi ngi lay béggee di la ndamoo ndax sa taxawaay ak sa jëf yu rafet di la ñaanal suñ boroom subhaanahu wa taala defal la fanu gudd defal la wér defal la nasran azizan minallahi defal la fatan qariban ndax sa xalaat yu rafet waaye sa yéene yu rafet ak sa jëf yu rafet tudde nga journée bi muy journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nga tudde ko ñaari jàmbaar yi Serigne Touba ñaari rakkam muy sëriñ seex coro ak Serigne Balla Thioro Serigne Cheikh Thioro mooy a ah, cheikh Mouhamad al Khalifa Serigne Balla Coro mooy Habiballahi ñoom ñaar nag seen taarix ak seeni jëf yaakaar naa ku suivre télévision yi suivre média yi ñetti semaine a ngi nii ñu ngi waxtaan ci ñoom di di di ñaar ñoo xam ne yaakaar naa ne liñ waroon a xam ci ñoom te muy am njariñ yépp xamle nañ ko ci média yi fan yi bu ko defee kon li ëpp ci li ñuy wax rek day jëm ci journée bi ak ci ki nga xam ne moom moo ko taxawal muy Serigne Basiir kon sëriñ bi fan yi dafa am mbokk mu ma wax ne xanaa coro coro yi ñoo aye ñoo moom média yi ma ne ko lu tax mu ne dama seetlu ne tele boo ubbi da nga fekk ñu fay waxtaani sëñ la Coro ak sëñ Seex Coro ma ne ko waaw sëñ Balla ak sëñ Seex Coro kat dañoo am seen sët bu baax bu ñuy wax sëriñ Bas Xaadim awo Ba sët boo xam ne kat dane daa bëgg génération bu bees bi jeunesse bi gën a xam kan mooy sëñ Balla Coro ak kan mooy sëñ Seex Coro ngir ñu mën a jariñu ci seen dund jariñu ci seeni jëf kooku mooy ki waral tele boo jàpp fekk ñu fay waxtaane sëriñ Balla Coro ak sëñ Seex Coro waxtaane sëñ Seex Coro sëñ la Coro mooy waxtaane sëriñ Touba ndax sëriñ Touba mooy ki leen melal mooy ki def ci ñoom li ci nekk waxtaane sëriñ Touba nag kenn ku ne xam na ne bokk na ci liggéeyal sëriñ Touba yi gën a mag kon sëñ Bass ba ngay ñëw ca Mbar wax li la tax a jóg nekkat bis bii danga koy def ngir suuxat ak mbokk ak dundal ko waaye ngir gën a dëgëral ak mbokk mel na ne loolu sëriñ bi objectif yooyu nga amoon nemmiku nañ ne objectif yu mat na sëkk résultat yi wane na ko ndax kat ñun ñi nga xam ne ñun nga ko tudde muy kër sëñ Seex Coro sëñ Balla Coro bennoo woon nañ naam waaye nag ci fan yii nga xam ne ci nga tuddee bis bi sëñ Seex Coro sëñ Balla Coro gën nañoo xóotal suñu bennoo gën nañoo xóotal suñuy relation ba sax am na ay projet ay initiative yoo xam ne juddu na ci biir famille bi te sa bis bi moom moo ko waral kon sëriñ Bass mel na ne wax dëgg yàlla bis bi liñ ci doon xaar yépp am nañ ko bokk na ci li ci ëpp solo mooy bennale famille famille yi te loolu bennoo woon nañ waaye dafa gën a dëgër waaye itam liggéey bi nga xam ne def nga ko ci tasaare njàngalem ak liggéeyu sëñ bala Coro livre bii ma yor nii man mii maa ko bindoon 2017 sëñ Bass bi mu ko yégee dane ma danaa ci mool lu bari seddale ko ngir ñu gën a xam kan mooy sëñ Balla Coro ak kan mooy sëñ Seex Coro loolu ci liggéey bis journée bii la kon lu ama am solo la kon sëriñ Bass ñi ngi la ci maa ngi la ciy sant bu baax a ci turu famille bi yëpp ndax lii kat dina sawarloo ab gëstukat ndax ñu bari dañuy gëstu waaye duñ gis ku leen ko tasaareel kon sëñ baas ñun de dañoo dégg ñu naan la gaynde baara xamuñu na ku la ko tudde waaye kilo la ko tudde daal juumut ndax daal say jëf say doxaliin ak njàmbaar lay tegtale ak wu fit te loolu nemmiku nañ ko ci gaynde kon sëñ Bass tur woowu moom tur wu wuyu boroom la kon lu ne fàng moom kenn du ko jeex li fi lim yépp ci ay résultats yu bàyyi ko ci bis yi luñ mën a làmb daj ko luñ mën a xool gis ko kon xàll nga yoon woo xam ne yoon wu rafet la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyaama kon Sëriñ Bass lii nga euh, euh, yoon wi nga fàkk ku la ci fekk si tey wala mu rey la ci da nga am ab sab yool boole akub yoolam loolu nag gisuma lu ko gën a màgg kon ñëpp nag ñoo la ci war a roy ndax famille yëpp war nañoo jéem a xool nan la ñuy war a bennoo ci seen biir ak nan la ñuy yaatale ak nan la dundale seenu mbokk kon yoon woowu nga xàll sëriñ bi ñi ngi la ci ñee bu baax waaye di la ci ñaanal yàlla na la ci yàlla defal ndam ci barke sëriñ Touba yomb na ci yow nag waaye du lu yomb xanaa li tax mu yomb rek mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne kullun muyassarun lima xuliqa lahu kenn ku nekk danañ la yombalal li tax ñu bind la loolu xëy na moo tax nga def lu mel nii yomb ci yow waaye doonut lu yomb loolu bis nag mooy tëjtee activités yi waaye kenn ku ne xam na ne activité yi tàmbali woon naa lu ëpp ñetti semaine ci ginnaaw bu ko defee sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal bu baax di la ñaan di ñaan suñ borom subhaanahu wa mu dugal la ci bayitu sëriñ ba muy wax ba muy ñaanale ña nga xam ne ñoo koy liggéeyal di wax ne waqdi hawaïj alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamum warzuquhum al imaana wal islaama wal fatha wal ihsaana wal istislaama kon sëriñ bi loolu ñi ngi ñaan yàlla defal la ko ci bis bi defal ni ko ñun ñëpp ab képp koo xamante ne nii roy na la ci wala mu toppandoo la ci sëriñ Mulaay mbakke nag waxoon na ma ne naa sant mbooleem taalibe yi mbooleem mbokk yi mboolem dëkkandoo yi nga xam ne bi yégee ne bis bi tudde nañ ko sëñ Balla Coro ba léegi ñoom ñëpp ñi ngi jóg taxaw def ko muy seen bis ñi ngi leen mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen tànki dem seen tànki ñëw ak seen tànki dem yëpp yàlla leen ci suñ borom bindal yiw waaye itam suñ borom aar leen sàmm leen ba ngeen dem ci jàmm ñibbisiwaat ci jàmm bu ko defee sëñ Balla Coro nag xamle ko lu gàtt la boo ko bëggee xam da ngay tontu ñaari laaj rek mooy kan moo ko yar ak fan la yaroo buñ ne kan moo ko yar ñu ne diggante Serigne Touba ak maam Thierno Ibra foofu la yaroo kenn ku ne xam na Serigne Touba ak maam Thierno Ibra Faati seen i jikko kon boo bëggee xam sëñ Balla Coro xoolal Serigne Touba xoolal maam Thierno Ibra Faati ndax ñoo ko yar. Serigne Seex Coro it boo ko bëggee xam xoolal maam Mor Anta Sali ak Serigne Touba ndax ci diggante maam Mor Anta Sali la yaroo ak Serigne Touba kon. ngir bañ a guddal rek sëriñ bi ñu ngi tëj suñuy kàddu foofu di sant di ñaan di gërëm di fedd li ko la di la wax ne sëriñ bi nee na loo nekk rek na ko yëg ñu nit lu ñu nekk danañ la ko yëgal ñu gën a fasante kóllëre gu bu baax a baax wasalaamualeykum wa wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mu mel ni euh, sëriñ Khadim moom Serigne Abdoul Fattah ñu ngi koy daral bu baax El Hadj Mbaye Sarr Sénégal. Tour ñu ngi koy dalal bu baax moom itam agsi na Serigne Abdoul ñas Niass doomu Maulana Cheikh Al Ibrahim Baye Niass agsi na léegi moom itam ñu ngi koy dalal bu baax a baax a baax délégation Déthié Fall alaaji monsieur Mandiaye Sylla moom itam agsi na ak délégation bi nga xam ni mooy kër Serigne Bara Amar ñoom itam agsi nañ Serigne Beyti Amar ak délé Serigne Cheikhouna Amar dañ koy rendre hommage ak Serigne Cheikh Amar ak délégation bu am solo sëñ Jili bismillah sëñ Jili mii sëñ Moustapha mii mooy wax ci turu Serigne Cheikh Thioro bismillah bi sëñ Moussa Abdoul Karam ñëwee. bi sëñ Moussa Abdoul Bas dafa xool jotaay bi. sëñ Bas dafa xool jotaay bi. daal di xool kan moo war a jóg. daal di xool kan moo war a jóg. xam ni Souley Diagne murit la. xam ni Souley moom taalibe sëñ Tuubaa ko gën a lépp. moom lay sàkku yegg ni ko sëñ bi kaay ma jóg jox sëñ Moustapha mu toog ak sëñ Sidi Ahmed man ci comité d'organisation bi laa bokk. murit nag su lay doo am complexe doo am jotaay alaaji Moustapha saw micro sen doomu soxna Baali Muntaxa taalibeeb sëriñ Amsatu Mbàkke Jaalibatul Maraaxib agsi na mu mel ni président président Mamoun Lo <laughs> mooy président Mamoun mu mel ni Abdou Aziz Mam Fama ñu ngi koy dalal ci turu Tayiru Abdou Aziz Tayiru dem teraanga ji nga fa indi doy na sëkk teraanga ñu ngi lay ziar di la. muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu